di soññ suñu bopp di soññ mbokki taalibe bi fu ñu man a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ci fépp fu daayira Cheikh Issa Diène nekk wala ka nga aju aju ci kër Cheikh Issa Diène wala sax mu nekk am murit boo xamante ni ci yoon rek la aju muy mbokk muy ab taalibe ndax Cheikh Issa moom ni ko saa borom bindee ci réew mi eh, fenn fu nekk rek am na lu ko fa saa borom defal ci wàllu mbokk wala taalibe wala soppi ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ñu ñëw ànd ak waa jamaay bi ci bis bi ñuy woote ci eh, le 12 mars incha allah ko defee ñun ci côté bii ñu féete ndax bis bi amuñu lu ko ëpp ndax bis boo xam dañ ci fàttali Cheikh Issa di ci wax eh, ay jaar-jaaram diggam ak di ci wax ay jaar-jaaram diggam ak mag ñu baax ñi mu àndaloon nekk ci kër Serigne Touba loolu lu mat a a dugal sa loxol tey kenn nit du ko def ñaari nit du ko def ñett a def kon nag ñi koo xam ne aju ci kër Cheikh ndax li ñi koy def am nañ ci ndigalul Cheikh Abdou Latif mi nga xam moo nekkal Serigne Issa te loolu boo ko xasee am rek da ngay daal di am ndigal ku fi nekkal Serigne Touba muy Cheikh Mamadou Mountakha kon nag ñu ci soññ mbokki taal bi yëpp ñëpp daal dugal seen loxo te jàpp ci ba nga xamante ni danañ ko yëkkati ba mu àgg foo xamante ni xel du ko woon xalaat ñi ci ñaan saa defal ci ak ak kawe ak réussir gu bare bare bare ci daraja yi ki ñu koy defal parce que borom Touba